amis auditeurs merci amaan na ñu mbégte ñëwaat ci seen plateau Rewmi People émission ndaanaan gi comme ni ma koy waxee gi ngeen di am samdi bu jot 16h jàpp 17h suñu invité tey mooy Saaro Saaro xam ngeen ko jaaroon na fii bokk na ci ñi nga xamante ni amoon naa mbégte ak fierte def ak ñoom euh, dans mes premiers dans mes tout premier numéro ñi ma njëkkal defal émission ci la bokk jamono yi dama ko fekk woon këram tey nag moom fekk si na fi nga xamante ni mooy rajo Rewmi FM tamit ma di jéggalu auprès de vous chers auditeurs ki nga xamante ni euh, mooy sama mbokk sama binom ki may defandool bi la émission ji leader tey dafa am contretemps euh, moo tax euh, il nous a fait donc un faux bond ñëwul mais c'est malgré lui et donc on s'excuse de cela auprès de vous amis auditeurs alors sans plus tarder ñu jox ki nga xamante ni mooy suñu invité ah Saro mu nuyoo ak ñi nga xamante ne ñoo koy teewlu ci la rajo du bonheur salaamaaleykum Baye Fall. waaw maaleykum salaam euh, Mimi sama xarit waaw ah, gëj nañu gisante yàgg na depuis 2016 la mhm. waaw après nga disparaître. yow mi yaa disparaître non yow yaa disparaître parce que gisatuma la fenn. <laughs> Uh-huh. waaw bon maa ngi euh, nuyu euh, auditeurs yi nga xamante ni à chaque fois dañoo fidèle si sa émission. Mhm. ak yenn émission yi nga xam ne ñu jàll ci réew mi FM boo réew mi FM moom sama sama kër la. waaw sa kër sama kër la waaw. bon di leen gërëm di leen euh, wax ne bon ma dal naa jàmm quoi yaa ngi may toppatoo bu baax. <laughs> waaw jox ma ma lekk jox nga ma naan. noonu <laughs> ñoo fax da ngaa bokk ci ñun bokk ci kër gi alors euh, Saro depuis 16 2016 euh, kon nga fi gëj mine de rien ça fait trois ans ah. 4 ans sax bientôt alors depuis lors ci loo nekk. waa depuis loolu waaw wax nga dëgg gëj fi nag parce que boo xoolee 2015 laa génne woon sama premier album mu tuddoon tomoro mhm. moo taxoon ñu gisee de 2015 euh, à 2016 maa ngi doon jouer un peu partout ci Dakar Sénégal commencé di dem ay yenn festival euh, lu ci mel ne ay Maroc ak yenn affaires yi mhm. mais depuis 2017 bon xaw na gëj naa Sénégal parce que dama nekk di jouer un peu partout dans le monde xam nga commencé di dem ci festival yu mag yi ay Inde Espagne commencé di waaw di waaw ku jum quoi mais eh, commencé di di di dem sur le plan international bu baax a baax moo tax peut-être ma ñu gëj a gisee nga gëj a mm-hmm. yëg samay actualité mais looloo tax aussi tamit ma gëj ci ci ci réew mi bien vrai que fii laa dëkk sax mm-hmm. mais activité yi ma daan def fii nii si biti laa ko doon gën a defee quoi donc on peut dire que Euh, depuis lors artistiquement tu as beaucoup évolué. waaw waaw allah artistiquement euh, évolué naa bu baax a baax a baax sur le plan international mhm. euh, waaw loolu la loolu mooy loolu mooy réponse <laughs> d' accord alors Saro bu mel ni Sénégal liñ la fi dégg bëriwul tu es plutôt un artiste qui preste beaucoup à l' étranger pourquoi ce choix. non choix bi du ci man parce que je crois que article bi ma njëkk am si je me trompe pas article bi ma njëkk am maa ko amee ak mi FM. Mhm. ba ñuy bind ñu ne am na nu ñu titré woon ne bon damay tourné wu euh, vers l' étranger. Ah. que sama réew du caaginu sama réew bëgguma fi def parce que ku sañoon sa dëkk lañ lay gën a xamee que bitim réew parce que sa waa dëkk ñooy sa doole. Mhm. sa waa dëkk ñoo la mën a jàppale nga dem fu sori mais nag dafa fekk ni peut-être style mooy waral loolu parce que boo xoolee fii mbalax moo fi ëpp doole. moo mooy gën a dox moom lañ gën a déglu bon boo defee jarul sax nga def tuuti effort di nga di feeñ mais man style bi may def afro folk jazz c'est sélectif quoi ñi ñi koy ñi koy consommer bon mën naa ne bëri na bëriwul c'est sélectif quoi benn minorité la quoi ci ci ci réew mi uh-huh. looloo waral peut-être ñoom dinañ yëg samay actualité mais la majeure partie du ñu yëg samay actualité uh-huh. léegi euh, li may def nag à l'extérieur la gën a la gën a doxee moo tax rek peut-être xam nga mais problème bi mooy fu sa sa ñeex di tooyee rek peut-être foofu ngay waaw foofu doo fa ba waaw <laughs> ah, loolu la ko mais du dara <laughs> uh-huh. mais est-ce que tam jotul nga imposer aux Sénégalais ce genre musical yow ak yeneen ñu mel ni yow parce que tamit liñ naan kuy wàlliyaan sa dëkk tëggul mais est-ce que rythme boobu tey warul leen ko imposer de façon locale tam est-ce qu'il pas temps waaw looloo waral nag euh, euh, di la remercier si question bi. Mhm. looloo waral ba ma de de deux mille dix neuf laa décidé ne su ma def sama album deuxième album bi dinaa def le tout pour marquer benn empreinte si sama réew. Mhm. bon yàlla def euh, ma nekkoon tournée décembre deux mille dix neuf ba janvier jeexalee ko Espagne Îles Canaries bon am na amoon na benn groupe boo xam ne bu tudd ST Fusion moom laa nekkal en collaboration def ñoom sama deuxième album. si laa décidé nag ma ne avril deux mille euh, vingt dinaa leen invité euh, Sénégal fii nii pour bu ko defee ñi nga xam ne dañoo Sénégalais yi fi nekk wala ñi nga xam ne xamaguñu boo defee communication dinañ mën a yëg benn benn benn buzz boo xam ne ne aussi tamit fa ngay jaaree aussi tamit peut-être pour jéem a imposer wu. Mm-hmm. parce que mosuma mosuma woon euh, def benn événement boo xam ne ma maa ko créer sama bopp. Mm-hmm. moo tax ma dem jëloon jël salle musée de civilisations noires le 3 avril. le 4 soo Soxamoon le 9 villa Renaissance yooyu yëpp boo ko gisee c'est juste comme sa question bi lay rejoindre ne bëgg na commencé nag di imposer wu euh, sur le plan national. Mm -hmm. voilà d'accord alors euh, donc euh, comment dire déjà euh, li nga xamante ni mooy bile album am na bu ko jiitu woon mm-hmm. ah boobu comme tu dis c'était en 2015 mm mm-hmm. est-ce que mën nga ci ñëwaat. waaw album boobu noonu 2015 euh, euh, ba ma ko defee euh, ubbil na ma ay buntu yu bari parce que quatre titres kese la woon. ça s'appelait comment déjà. Tomorrow Tomorrow Tomorrow waaw Tomorrow quatre titres la woon te comme bon ba ma ko commencé yóbbu si média yi gars dañu ah, li leen njëkkoon jaaxal mooy pourquoi quatre titres. Mm-hmm. dañ lay laaj xanaa amoo répertoire ma ne si effectivement mais stratégie la woon pour imposer wu. fii sur le plan national parce que boo xoolee am na artistes yu bari yoo xam ne ñooñu ñooñu fi jiitu. te ñooñu aussi tamit statut bi ñu bu ñu bu ñu toogee yow da nga war a liggéey lu bari pour egg foofu noonu mais li la fa yóbbu aussi stratégie la. Mm-hmm. bon ma ne ok sama son yëpp yaakaar naa ne neex na mais dinaa si tànn cadre yoo xamante ni nii nit ki bu koy déglu du du stressé wu. parce que bu lekk mu ngi commencé gis ay cinq huit titres rek day naan wu du ma déglu yëpp. Mm-hmm. parce que problème de temps. ak àdduna mm-hmm. bi léegi ñi ñu amatuñu temps léegi quatre boo quatre boo commencé déglu benn bi pour nga def yeneen trois yi day gaaw. léegi parce que son yooyu dafa neexoon léegi si la commencé def benn genre mënu ma ko tuddee sax buzz mais si la ma gars yi commencé di xam ñi ma xamul woon commencé ma xam di di nit ñi di apprécier fu ma génn xam nga gars yi di apprécier. bon ubbiloon na ma tamit buntu yu bari parce que def naa si Saint-Louis Jazz euh, ñu programme ma ci in bi. Mm-hmm. te loolu noonu c'est pas évident euh, am na Sénégal yu bari yoo xamante ni def nañ musique pendant trente ans quarante ans cinquante ans te mosuñu yëg si seen boobu noonu. joué foofu noonu. kon man honneur la woon ak euh, benn euh, surprise boo xam ne peut-être album bi réservoir woon na ma ko. Uh-huh. bon voilà après gagné naa ci tamit euh, bokk naa ci 10 finalistes RFI prix découverte RFI en aussi tamit album bi dimbali na ma tamit ma nekk en collaboration ak ambassadeur wu kii Inde ba ma wayoon 150e anniversaire anniversaire u Gandhi. si euh, laa demee Inde après seen ministère des affaires étrangères bi envoyé ma benn raaya mhm. bon kon mun naa ne loolu lépp ci parcours Tomorrow la bokkoon kon euh, ubbil na ma woon euh, ma buntu yu bari si la commencé di dem sur le plan international. Mm-hmm. non dans cette émission il était prévu que da ngay indi guitare mais finalement. lay nga fi daal lay nga fi <laughs> loolu nga fi wax. <laughs> d'accord léegi ci album boobu tuddoon Tomorrow am na ci son boo xamante ni peut-être ça a marqué ça a fait du tabac ban la. bon mën naa ne yëpp yëpp defoon tabac. ban moo gën a particulier waaw particulier Babylone. yaakaar naa ne Babylone est-ce que mën nga ci ñamal quelque. Ah. yàgg dund yàgg dégg yàgg xool. yàgg uh, gis. àdduna wu géej mambu laan la boo ci yeewu léegi ñu war la def la mbaam. mbaa yow xool. mbaa yow yaa ngi déglu ma del déglu mooy li gën a <laughs> am na benn tàcc bu ndaw bu ngeen di dégg à côté. Ah, moom la yow a y' a y' a ton fils kon tey man sama émission bi ala daw na ndax euh, j'ai le petit Taskia qui est avec son père. Euh, son père qui est là Saro qui veut que macha allah et incha allah que son enfant soit soit artiste comme lui c'est bien cela. pourquoi nga bëgg sa doom woy comme yow. bon euh, parce que moom exemple comme yaayam dafa dafay ne moom euh, dafa bëgg mu nekk euh, bon nan lañ ko waxee pilot mais bon man pilote conducteur d'avion. waaw d'avion bon loolu la yaayam wax man bëgg naa ko def artiste quoi parce que xam nga aar aar ça bien. Mhm. bu fekkee na euh, ñëwoo jàngoo ba ba ñu dàq la nga jóg see dugg parce que r boo ci dugg duñ la laaj diplôme. Mhm. loolu pour nga échouer mën na yomb parce que loolu yow en fait danga doon doon raccourci rek nga doon wër. mais bu fekkee ne xale exemple moom bëgg na benn affaire danga ko ci accompagner parce que man su may voyager des fois damay ànd ak moom. Mm-hmm. su may dem ci émission ay ay télévision damay ànd ak moom muy xool. Mm-hmm. su may dem ci ay rajo damay ànd ak moom muy xool su ñuy dem ci ay théâtre cinéma danse peinture damay ànd ak moom parce que loolu noonu xam nga loolu la ñuy wax parce que discipline yi dafa bëri. Mm-hmm. léegi yow du yow yaa ko imposer lu mu bëgg a doon. mais da koy bàyyi moom mu choisir yow ci sa environnement. ndax bëgg na ko peut-être mën na bañ a bëgg aar. Uh-huh. mais mën na gis ne peut-être rajo la bëgg wala soit que télévision la bëgg parce que mën na nekk directeur télé après am ci amour. Uh-huh. kon xale da koy accompagner aussi tamit. à travers waaw li mu bëgg mais à travers aussi euh, à tes activités. Uh-huh. bon moo tax euh, fu may dem teel ko ci xiirtal mais après nag bu demee ba benn euh, benn moment moom mooy décider mais sa veut pas dire que du jàng. waaw parce que dañ koy imposer mu jàng bu jàngee ba pare nag parce que. xam nga Afrique problème bi euh, chaque jour dañu lay wax ne la jàngal mais duñ la laaj mukk yow li nga bëgg. waaw loolu mooy problème mu Afrique moo tax euh, taux d'échec yi te des fois day xaw a bëri. waaw parce que nit ki day bëgg lii yow nga impo imposer ko leneen. léegi effort bi muy def fële du ko def fii nii léegi après euh, échec lay indi. bon. sama gis-gis personnel la quoi. oui parfaitement alors peut-être ça nous permet d'aborder sujet d'actualité li xew ci Sénégal euh, ak scandale scandale bi nga xamante ni ñeel na benn une petite artiste entre mm-hmm. guillemets mm-hmm. boo xamante ni peut-être elle a participé à une émission télé boo xamante ni da doon jox euh, privilège xale yi nga xamante ni dañoo <laughs> sop woy est-ce que tey ji euh, yow bokk nga ci parent yi nga xamante ni ils sont prêts bàyyi seen doom ñu bokk ci na euh, xeetu concours musical yooyu ak tentation yëpp yi nga xamante ni loolu wund na ko déjà yow ban aperçu nga am sur tout ce tollé et ce qui se passe est-ce que déjà tu es d'accord avec euh, ces concours musicaux qui promeuvent les enfants non man je ne suis pas waaw man je ne suis pas parce que boo déggee sànq maa ngi lay wax ne la su may dem ci rajo wala may dem fenn euh, ci ay émission wala concert dama yóbbu sama doom. xam nga école tamit dafa am benn temps divertissement. Mhm. léegi c'est que foo foo ma gis ak moom rek divertissement la. waaw waaw mais ça mais heure jàng bu jotee day jàng xale. aussi adolescent bu dafa am benn âge boo xamante ni nii waruñu ko teg ci scène. Mhm. muy muy kii parce que après xelam. Mhm. day day en fait xelam day day day sut. xale mel. normal nor xelu xelu normal am c'est-à-dire que en fait day day day day day gisee feneen xale moo demee noonu mais man je suis pas d'accord ñuy jël xale di leen exposé ñu waaye ak affaire yooyu noonu non nañ dañoo war a jàngi mais nag temps de divertissement bu amee mooy maanaam nga yóbbu leen ci ay conseils seulement ñu seetaan. Mm-hmm. wala ay film bu amee wala ay nga indi leen ci ay rajo exemple Rewmi FM ñu ñëw def ay stage pendant les vacances. Mm-hmm. xool na la ñuy defee journalisme affaire yooyu noonu parce que des nga dégg nit mu ne man. ba ma doon ba ma doon jàngi école dama daan dégg animatrice bi wala animateur bii nii mhm. mais daf ma neexoon parce que guddi gi dama daan tëdd mais du ma bëgg lu dul nekk animateur xam nga moment yooyu kon pourtant animateur bi yëgu ko mhm. mais moom xam na ne bu yeewoo dafa war a jàngi mais loolu noonu divertissement la woon boo xamante ni dina ko permettre aussi mu am amu ci audiovisuel mhm. mais bu demee ba màgg ba am ay diplôme peut-être mën a dugg ci rajo wala soit que mu oublier mu fàtte passion boobu noonu mu euh, mu daan mu daan xalaat si animateur wala animatrice bi. Mm-hmm. mais waruñu jël fi nga xamante ne ni mag yi dañ foo war a nekk di liggéey ñu ñëw teg fa xale. Mm-hmm. loolu man je suis pas d'accord. mais est-ce que tam nul am benn côté positif parce que quoi qu'on puisse dire mën na am ay conséquences mais mën na am tamit des révélations xale yoo xamante ni xëy na bokk nañ ci concours bi. génn voilà et qu'au lendemain ñu nekk de grandes stars est-ce que tam amul côté positif. selon toi mooy xam nga bala ngaa wax posi positivité day fekk mu nga gis benn résultat. Uh-huh. mais résultat amagul. yow ban résultat nga ci gis xale yi jàppee seen bopp star nekk ci internet bi di exposé wu. waaw waaw waaw xam nga c'est que star dafa xam nga star dama ko doon wax keroog ne star existé amul. Uh-huh. bon benn affaire bu ñu lay créer rek nga ne star nga mais exa star ça n'existe pas li existé mooy li ngay liggéey est-ce que yaa ngi ciy gagné waaw xam nga dafa am célébrité mooy ku ñëpp xam mais ça veut pas dire que ne star nga parce que est-ce boo yeewoo am nga loo ndekkee mais bu ñu camp bu ñu wax nag ay star mooy dañuy wax ay ñoom Michael Jackson ñoom ñi nga xamante ni ay ay multi milliardaire lañ ñooñu ñuy wax ay star ñooñu nga xam ne pour seen benn ñu foto leen rek ça ça il faut il faut nga fay xaalis bu bari pour autorisation boobu noonu ñooñu lañuy wax star mais euh, célébrité ak popularité euh, je crois que moo am Afrique mais star amagu fi parce que xale yooyu noonu man gisaguma ba léegi nii ban euh, conséquence bu positive laa gis laa laa laa laa tegu gisuma sama bët parce que foo résultat am nga doogoo wax leneen. mais résultat boobu léegi gisaguma ko. waaw mhm. kon yow buñ la woowoon pour nga bokk ci jury bi nga xamante ni voilà ñooy choisir les plus bons. da ngay no non duma duma duma ci bokk. lu tax doo bokk. non parce que xale xale place am mooy nga encadré ko ba mu majeur. Mhm. après parce que dara trop tardul. Mhm. parce que talent mooy loo xamante ni nii nga nekk xale ba boo nekkee mag da topp parce que c'est c'est quelque chose inné. léegi xale dañ ko war a jàngal. ba mu màgg bu demee ba màgg ba ba ba am maturité. boobaa moom dina mën a jël ay propre responsabilité am di éviter ay tenta ay tentation ak yooyu yëpp. mais xale bu ndaw bu xamul dara pour nga détourner ko c' telement tellement facile. waaw bon pour man xale dafa war a jàng ba benn moment après mu choisir àddunaam lu muy def. voilà parce que am na xale yoo xam ne peut-être ñu ngi leen di imposer. loolu to en réalité au début c' était juste pour pour fo. mais après ñu ñëw dëggal leen ne leen lii liggéey la. mais peut-être ñoom est-ce que en âme et conscience ñoom bëgg nañ ko. mais on sait pas. d'après toi y a une y a un âge prédéfini pour être artiste. non y a pas d'âge mais dafa am âge boo xamante ni si ngay professionnaliser wu. comme par exemple. bon à, à de dix huit ans dix neuf ans vingt ans foofu mën nañ ne man yaa ngi commencé nekk ci âge boo xam ne yaa ngi professionnaliser wu. pour sa carrière parce que day fekk nga mature day fekk bu ñu lay signer contrat nga mën a liir mën a xam. Mhm. xam nga. xale bu ndaw boo xam ne 16 ans la am. nga ngeen koy signer contrat xamul point d'interrogation ak les mots clés. bu fekkee ne euh, il il il ou elle vit pas avec ses parents mënu ko xam mën nañ la exploiter. mën nañ la après euh, un jour tamit commencer la jox yoo xamante ni nii doo xam. doo xam quoi parce que pour man il faut nga mature. dem ba am vingt ans wala dix neuf ans vingt ans parce que milliard dafa dafa dafa dafa compliqué dafa dafa dafa dafa lëndëm. c'est ça voilà. Mm-hmm. léegi boo amee vingt ans nag mu leer na yow xàmmee nga ràññee nga. Mm-hmm. bon lépp looy def wala lu ñu lay def loo da ngay mën a réfléchir mais xale du réfléchir fugg lay ak énergie. Mm-hmm. Saaro yow d'après toi lan moo tax Sénégal ñiy def ay folkak saari misik googu ñi fi def mbalax gën leen a am buzz. non buzz xam nga buzz waaw xam nga sànq loolu xam nga buzzu buzz peut-être indilu la xaalis. Uh-huh. man damay c'est que man su ma choisir métier pour ma dund ci la. Uh-huh. mais pas xam nga buzz moom yomb parce que buzz soit que nga xaalis dem fay. Uh-huh. def clip. jàllale ko ci télé bi wala nga yor xaalis jéem a xool nooy nooy def bon pour pour am buzz. buzz moom pour nga am ko fii. c'est c'est tellement est-ce boobu noonu dalay dundal. bës boobu du la boobu du la dundal. bës bi euh, man li may def mooy damay liggéey parce que damay def euh, musique bu baax. su ma su si paree ma mën ko jaay. ma mën ko jaay bu ko defee à l'international jënd ko. loolu la quoi mais bu fekkee mbalax maa ni fii nii bon ñoom nañ nañ gàddu bës bi. tu tu viens tu vis bien de ton art. Ah, bien sûr am nga xaalis. non ñàkkuma xaalis boo ko ci artistes yi plainte wu naan bon voilà. non difficile wax dëgg yàlla waaw boo man wax dëgg xamul tax xamul tax mu difficile. Mhm. parce que déjà bu fekkee da ngay bu fekkee ne benn menuisier dafa nekk sa koñ. Mhm. saa yoo ko joxee xaalis mi dafa la euh, euh, chaise boo xamante ne deux jours mu yàqu. Mhm. mais boo gisee beneen waay sa ginnaaw koñ. muy defar chaise yoo xamante ne nii day diire cinquante ans ban ngay jël. bi nekk sa ginnaaw koñ. c'est noonu la demee. boo war jàng jotee nga war a jàng musique nit ñi dañoo dem jàng musique dem xam nu ñuy composé xam lan mooy norme standard international yi bu ko defee yow loo xas a génne day jar mais ñi nga xam ne dañoo ne dañoo doon musique kon médecin bi jarul bu deewee doomam mën na ko doon léegi ñooñu nag ñooy plaindre parce que ñooñu noonu ñoom ñoom ñoom c'est pas des musiciens c'est pas des artistes mm-hmm. bon ñàkk métier moo tax ñu dugg ci moo moo tax Euh, milieu bi bëri waaw waaw par défaut moo tax nag milieu bi bëri façon xeetu doomu aadama yooyu ñooñu ngay gis ñuy plaindre mais ñi xam ne ñi ngi génn wala ñi ngi dem xam Youssou Ndour du plaindre mm-hmm. keneen ak keneen du plaindre parce que li ñuy def dañ ko xam bu ñu bu ñu bu ñu liggéeyee benn affaire da ngay gis waa bitim réew jënd ko mm-hmm. kon ñooñu ñi ngi ciy génn waaw mm-hmm. d'accord euh, du mbalax c'est du rëm tamit ah. avec beaucoup de bruit. Ah. mais quelle est la particularité du genre musical euh, yow bi ngay def. man bi may man li may def afro folk jazz world music. tu définirais cela comment. bon afro folk jazz xam nga euh, ni ma koy définir mooy musique musique mooy fi fi musique yam. Uh-huh. fi mu fa fa bi gën a xaay bi ah, uh-huh. waaw bi gën a xaay. waaw bi gën a xaay nag du ku nekk koy déglu. <laughs> parce que ni niveau voilà waaw ni niveau waaw comme ça genre bi moom duñ ko déglu parce que yow boo dégloo ñaari tuuti mélodie rek tam tam nga nelaw. Uh-huh. waaw day fees sa bopp quoi. Uh-huh. bon neex na ba pare tamit musique buy conscientiser la. Euh, loolu vraie musique la quoi. waaw ay boo déggee ñu naan la ay ñoom Bibi ay ñoom Michael Jackson ñoo ñëpp doon ci génne. parce que Michael Jackson pop lay def te biir sa pop mu ngi ci biir euh, afro folk jazz ak pop pop world music world music moo leen ëmb yooyu yëpp. lu tax nga taamu def boobu. waaw li tax ma taamu def ko parce que dama euh, dama am influence déjà si sama ba ma nekkee xale. ton père il est musicien. non non intellectuel la bon il était euh, percepteur euh, municipal de Dakar. Mhm. donc bon mais ay jamono yi ba nekkee xale boo xoolee musique musique euh, ay blues ay ay folk yooyu noonu moo doon actualité jamono yàgg yi. Mm-hmm. yooyu da daan dugg marché euh, marché bi dafa daan ñëw quoi danaa daan jóge ay États-Unis fu nekk di ñëw boo xoolee style yooyu noonu ba mbalax sax kiiwagul kiiwagul nii quoi marimba bi amagul woon nii doole. Mm-hmm. vraie lañ daan lañ daan dégg bool exemple déglul wayu Souleymane Faye yu yàgg yi mm-hmm. wala wayu Cheikh Lo yu yàgg yi comme musique boobu laay def. parce que doo ci dégg marimba mais nag ci dégg musique bu neex. mais léegi la def marimba. moom sama papa daf ma daan influencé parce que ay ñoom Bibi King mu nekkee xale xam nga mémoire mooy enregistré bon peut-être gàlle bi nii des fois da koy teg peut-être loolu influencé na ma ba ma maggee bon ma am ci euh, sensibilité mm-hmm. waaw ma ne bon du ma def mbalax lii laay def parce que xam nga mbalax fii rek la yam Sénégal mm-hmm. bon waaw parce que waaw c'est pas mm-hmm. que tey fi mu nii su ma bëggoon buzz wala bëgg ñëpp ñëw wuy si ma mën naa commencer def mbalax mais est-ce que dinaa ci génn loolu mooy vrai problème bi est-ce que dinaa ci génn. y a ce paramètre. voilà paramètre boobu noonu voilà loolu waaw. <laughs> d'accord et tu as aimé ce genre musical. quel a été tout ton tout premier produit lan foo njëkk a prester lan nga njëkk a produire. li ah, nga wax li nga wax ni nag yaa ngi may dugal de mi li nga wax ni yàgg na de te ma ne temps yi dama dama jëm mag. <laughs> yàgg na bon fi ma njëkk a prester je crois que bon dama Rufisque la woon quoi parce que dama doon commencer di jouer ay ay son ay ay dama doon commencé di jàng guitare déjà tuuti. Uh-huh. après di commencé waaye ay benn wayu Serigne Saliou bu muy way Serigne Saliou Mbacké. mais bon fàtte naa sax texte texte bi quoi. Uh-huh. mais benn jour laa romb benn benn concert bu ndaw nii rek gars yi nekk foofu di jouer quoi benn école. benn école la quoi buy doon def feetam. Uh-huh. xam na ak ak musiciens yi quoi gars yi di jouer ma gis ma ñëw taxaw ma gis des fois nit ñi di yéeg di kii ma ñëw yéeg. def fa deux am nga waaw non da am non dafa metti woon parce que c'était pour la première fois mhm. mais dama jékki-jékki ñëw rek comme que gis naa ñi ñaa ngi yéeg tamit te ko yéeg ñu jox la micro ma jékki-jékki rek yéeg waaye fa deux une minute laa way wàcc parce que gars yi ab ñu doon apprécier mais loo bon fàtte naa ko mooy wayu Serigne Saliou la woon bu ma composé woon mais c'est t'avais ta guitare ce mais foofu ay musiciens yi doon joué la waaw man dama ñëw dama ñëw rek non dama ñëw rek jël micro bi di way mais ba may woy euh, une minute laa fa def parce que boobu noonu euh, miinaguma woon public affaire yooyu noonu quoi affaire bu diisoon la ci man. Mm-hmm. ba mu wàccee ma continuer di dem mais j'étais vraiment tellement content. Mm-hmm. Euh, loolu tamit loon na ma ba sama carrière aussi tamit. ma ma ma ma ñeme nit quoi. d'accord parfaitement alors comment tu as fait pour te professionnaliser dans la musique celle que tu fais tu l'as appris à l'école tu as pris des cours tu t'es payé un un maître. explique-nous. oui bon en ba may tàmbali nag musique euh, euh, troisième laa bàyyee. Mhm. sama jàng soriwul quoi. sérieux oui bien sûr parce que sam papa à chaque fois ñu doon wax ne leen jàng laa leen sant quoi. Mhm. mais dafa am histoire bu bu bu extraordinaire parce que en 2009 euh, dama ne su ma amee BFM su ma amul tamit damay bàyyi. bon malheureusement jéew ma cherche sax pour am. Mhm. léegi après euh, ma bàyyi trois semaines quatre semaines un mois. sama papa mi ngi ma gis si kër gi pourquoi jàngiwu ma quoi mais boo waxuma dara parce que moom daf ñoo yar benn yar boo xamante ni nii ñun dañ ko du ragal sax mais dañ ko miinul quoi noonu bu baax léegi bon ma commencé bëgg guitare na quoi parce que dama doon def ay t-shirt si bind ay acoustique mhm. commencé war sama benn kay di bind ay texte déjà bàyyi naa école te pourtant sama sama waa classe yi. si léegi sa papa. non ko te pourtant si début d'année bi laa bàyyee euh, euh, laa bàyyee école dama xëy xëy rek dama tuma boo waxuma ko sama papa mais dina ko xam mais suñu waa classe yi suñu wàccee ñoom dañuy ñëw kër ga. waaw waaw yow waaw may yow lu tax lu tax ñëwoo ma ne noonu ah. fekk musique bi ëpp na ma doole quoi ñoom comprendre ñu saa ñu wàccee ñoom des fois dañuy ñëw. Mhm. di ma di ma expliquer ma ne la ah tey jàng ngeen affaire yooyu noonu mais ma bëgg guitare quoi te aw ma xaalis aw ma dara quoi ma jékki benn jour ma ne xaaral comme que am naa fi dàll ay dàll xaaral dem jaay ko. ak waaw ak sam benn téléphone léegi ma dem jaay ko. je crois que c' était dix mille francs laa ko jaayee quoi jamono yi parce que avant boobu ma koy jaay dama am benn guitariste boo xam ne ay sali lay dem di jouer euh, maa ngi ko nuyu de passage Moussa la tudd. Mhm. mu yoroon benn guitare euh, acoustique euh, guitare Pablo Martinez bu yàgg. léegi benn jour ma ne ko foo nga ñëw kër ma woo ko téléphone ma ne ko indil ma guitare bi mu ñëw kër ga fekk jaay naa guitare kii bi sama dàll yi ak sama téléphone bi ma yoroon ba mu ñëwee ma jox ko dix mille. Mhm. mu des war a des quinze mille. léegi mu jox ma guitare gi <clears throat> sur euh, sur lendemain mu ñëwaat pour récupérer xaalisam. Mhm. ma sàcc suñu ravitaillement ay warga ak suukar pour neexalee ko ko pour mu bañ a jël guitare gi. xam nga saa yu ñëwee koy neexal nekk dinaa la jox. léegi si laa nekk di kiring kiring ci guitare bi affaire yooyu mu jox ma quelques accords yooyu ma commencé jouer mais tombeek aussi sama papa feebar. Mhm. feebar quoi feebar feebar bi di gën a avancé ba benn jour boo xamoon na ne après day day décédé quoi. day wàcc waaw day wàcc benn jour mu ñëw ma toog di jouer noonu rek mu woo lu ma quoi Euh, ñëwal si wax leen diw mu ñëw pour mu jouer ma. Mm-hmm. bon ma ñëw man ma affaire bu nag ci man quoi ma ne non paa bi ma wax loolu. ñu woowaat ma ne ma ñëw ma ñëw commencé di ko jouer mu commencé di jooy affaire yooyu noonu xam nga après ñaan ci ñaanal ma ci xam nga affaire yi comme que ne ma yow lii nga bëgg ñaanal ma ci quoi mu ne ma di si dem fu sori. Mm-hmm. xam nga ma gën a gëm nag quoi teguñu si trois mois mu décédé. Mm-hmm. ba mu décédé nag ma ñëw si laa ñëw Dakar boobu ñu Rufisque lañ dëkk parce que suñu gaal foofu la fa la nekk. Uh-huh. ba ma ñëwee dakaar li ma njëkk def mooy inscrit école de musique. Mhm. di fa jàngal ban école. Euh, euh, kii Voice Music School. Mhm. mi ngi nekk Fass euh, Fass Payotte. ça existe toujours. loolu ça existe toujours mhm. mais bon privé la quoi. si laa ñëw ci bëri boole am na ñoo xam parce que école des arts bon boo amee BFM wala bac nga fay nga fay dugg quoi. mais bii privé la. léegi si la bon man nag dañ ma doon fayal. dañ ma doon fayal benn euh, sama benn xaritu papa moom ma doon fayal euh, bon xaw ma woon ñaata laa doon fay. mais lenn daal xam naa ko ne mais góorgóorlu naa parce que xam naa ne déjà sama papa décédé na. te man mii su ma fasul jom musique bi su ma ci su ma ci góorgóorlu mën naa féete beneen côté te bon échec mën naa am. tu es de la famille. non non deuxième. waaw. léegi ma commencé jàng foofu noonu di jàng di jàng ma doon jàng su ma wàccee quatre heures matin tamit. Euh, euh, su ma wàccee ay 17h euh, man noppaliku ba ay 20h. Mm-hmm. nekkaat di réviser di jàngaat ba trois h du matin. Mm-hmm. soit que maa ngi ci leçon yi ak maa ngi ci guitare yi. noonu laa ko def pendant 6 mois xaw ma non pendant 9 mois après ñu jël ma foofu comme professeur de musique. Mm-hmm. parce que ci même école bi ma commencé di fa jàngale en même temps former sama beneen groupe à côté. Mm-hmm. ton groupe de musique. waaw qui s'appelle Kopo. waaw waaw Get the Feeling la tuddoon jamono yi. Get the Feeling waaw Get the Feeling. et tu es seul wala. non je pas seul. mais groupe bee tudd Saaro. non man maa tuddoon xam nga nit da ngay màgg. Uh-huh. man je m'appelle Omar Sarr. Uh-huh. donc mon nom d'artiste c'est donc mais début jël Omar bi def si Sarr. c'est ah, artistique voilà <laughs> voilà voilà c'est ça. Uh-huh. léegi su ma wàccee saa yi may su ma jàngee wala ma jàngalee ba pare 17 heures damay dem jël former groupe bi ñu dem Blaise Senghor commencer di répéter. Mm-hmm. c'était juste pour trouver ay concert mm-hmm. un peu partout à Dakar ak ci sous-région bi ba commencer jouer Dakar. Mm-hmm. ci boîte de nuit yi. en même temps di dem di jàngale école. ba euh, école bi ma nekkoon commencé di jouer ci sous région bi aussi tamit. commencé dem ay Salek affaire yooyu noonu kon déjà Saaro. noonu la commencé parce que Saaro et Get the Feeling la woon. ok xam nga fi da ngay gis ñu ne la Youssou Ndour et le super étoile. waaw parce que si contexte boobu laa nekkoon loolu moo am Sénégal. Uh-huh. léegi si laa commencé nag di jouer group bi di jouer groupe bi di jouer groupe après à un moment donné ma arrêté ñoom parce que dama commencé découragé woon tuuti xam nga milieu bi c'était tellement difficile. si laa demaat nekkaat professeur sénégalais kii euh, SAPS. sénégalaise américaine bilingue school. mu nekk fa comme professeur de musique. Euh, ba ma fa jógee en 2014 non maa ngi fa nekk en 2010 11 12 13 14 2015 ma def sama premier album. ba ma defee sama premier album laa arrêté école parce que tournée yi moo commencé ñëw. Uh-huh. waaw kon mën naa ne di ma la expliquer nii sama biographie la. Uh-huh. voilà ah, ah, affaire yi dox ah. yi waaw affaire affaire yi dox waaw di dox ndànk-ndànk. Uh-huh. xam nga ma commencé di jouer un peu partout à Dakar xam nga di ko booleeg école bi SAPS. Uh-huh. ma commencé nag di voyager. ma ne non lii day metti parce que mënoo nekk à chaque fois di voyager ba pare ay élèves ñu lay xaar école. Uh-huh. bon si laa décidé ma arrêté école. donc de 2015 à 2020 bii may toog ak wax ak yow. ba ba léegi dama nekkoon di tourner un peu partout. dans le monde. waaw mhm. mais bu ñu nee Saaro euh, wax ni tam euh, euh, wax benn événement boo xamante ne dafay am tous les années toutes les années autant pour moi Saint-Louis Jazz. mais dernièrement ñu wax ni événement boobu bëri na ay rëkk-rëkk côté financier e que voilà ils avaient besoin ils avaient besoin d'aide mm. yow déjà année dernière édition bi tu as participé. ban édition édition bii passé non non bon xam nga festival bi ça dépend artiste bi bu ñu la programmé rek ngay ñëw mais bu ñu la programmé wul bon peut-être euh, doo doo xam yenn kii yi quoi parce que day fekk nga ci yeneen ci yeneen business quoi mais man depuis deux mille euh, euh, seize quinze waaye seize laa fa joué mais après bon amatuma ci benn information. Uh-huh. événement boobu d'après yow am na njëriñ. waaw parce que permettre na ma su ma mënee wax mën naa ne ne. moo ma ubbil buntu yu bari à l'international parce que fe festival euh, Saint-Louis Jazz dafa nekk festival boo xamante ni <clears throat> Afrique mën naa ne Afrique ba mu daj mooy festival bi gën mag ci Afrique mhm. bu ci gënul mag bokk na ci parce que da ngay xoolee ci édition mhm. léegi mu ngi si xaw ma vingt sixième édition mhm. mais festival bu tenir vingt six vingt six ans euh, bëriwul Afrique mooy festival boo xamante ni nii ténor yi si àdduna bi yëpp ay ñoom Bibi koo xam rek koo xam ne américain nga wala kuy def jazz si àdduna bi jaar nañ fa ñëpp jaar nañ fa tout le monde ñëw ñëpp ñi ñi ngay dégg ci sur le plan international ci àdduna bi yëpp ñëw nañ Sénégal ñëw seen louis jazz kon danoon festival boo xamante ni nii dafa am doole. mais état tamit aussi tamit foofu mu gën ci jàpp. parce que patrimoine la. ñu ngi koy laaj. waaw patrimoine la quoi nekkatul loo xamante ni xam nga affaire de personnel la wala affaire de dëkk wala affaire de Saint-Louis mais affaire de réew la. tey bu fekkoon ne sax ñoom dañoo laaj benn exemple cinq millions ne lañ soxla. Mhm. balaa balaa balaa trente minutes état bi wala. ñi nga xamante ni état bi war na ko mën a financer. parce que économ économiquement aussi li muy indi ci dëkk dëkk boobu tamit dafa bëri. parce que ñii dañ ciy gis seen bopp te lu tenir vingt cinq xaw ma vingt six xaw ma vingt sept sept euh, euh, année du caaxaan quoi kon ñi ciy liggéey. Euh, ñi ciy liggéey kon c' est des professionnels c' est des passionnés aussi. Uh-huh. di di nuyuwaale de passage biram uh-huh. waaw. <laughs> D'accord. Omar Sarr Saro est autre invité dans l'émission Rémi People de ce samedi. Alors, Saro, bah, j'ai une question. Pourquoi ceux qui font du jazz et folk, <laughs> ils sont souvent débraillés, euh, je veux dire, détournés du monde, euh, bi nga xamante ni nit ñi dañuy bëgg euh, comme à l'image des autres artistes. Vous, voilà quoi, da ngeen di woyofal mbir waaw lu tax lu tax loolu. waaw waaw <laughs> pourtant nag du yow rek yaa ma ko njëkk a laaj du yaa ma ko yaa mu jee laaj. Ah. xam naa bon xam nga artiste vrai artiste dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg da doon nit koo xam ne dafa war a di réfléchir tout le temps luy doxal humanité bi. Ah. vrai artiste parce que des fois nga dégg ay artistes yooyu man des fois mu fi dégg artistes yoo xam ne dañuy wax ay hoo ah. ay ay lalal basang. ay waxu dof yoo xamante ni nii amul benn njariñ. pour man artiste buy dem bay génne kàddoom. moom ak sëriñ bi nga xam ne dafa toog jékki-jékki xaar gis benn affaire bu baaxul ci réew. mu war ko wax nit ñi war ko déglu war ko jëfee artiste noonu la war a mel. parce que le marabout c'est un c'est le prophète messager la tamit. mais artiste tamit messager la. parce que moom dañuy déglu kàddoom. kàddu boo xam ne dañ ko muur ci mélodie même ki nga xam ne day jàng day day jàng alxuraan sax pourquoi muy neexal baatam. parce que dafa bëgg attirer attention. mais dëgg dëgg dëgg li ko li ko ëppal solo mooy kàddu yàlla bi muy wax. Uh-huh. nga nga koy consommer di ko déglu di ko jëfee. Uh-huh. bon man pour man art il faut être naturel et simple. Uh-huh. parce que fi mu nii mën naa yor ay cinquante millions mais su ma génnee damay sol sama dàll yu simple sol sama tubéy bu simple j'ai pas besoin montrer que nit ñi à travers si sama côté vestimentaire pour woon na leen ne yor naa non loolu ça peut ça peut euh, mën na tromper wu. nit yi parce que des fois nga gis nit sañse lu yor benn oto nga ne waaye waa ji am na xaalis fekk moomu ci dara. Mm-hmm. moomu ci dara il faut être simple naturel. Mm-hmm. waaw pour man artiste yow mi nga xam ne yaay war a euh, véhiculer ay message dafa war a da nga a neutre. Mm-hmm. waroo nekk ñaari couleur da nga war a war a weex wala rouge bu ko defee chaque jour tout le temps rek dañuy gis couleur boobu noonu moo tax nga mën a laaj question boobu noonu voilà. <laughs> d' accord nee nañ tam yéen a fi dàq toog gaañ gaax dëgg la. waaw bon peut-être non man déjà duma ma toog gàncax. Ah. parce que kuy toog gàncax buy waxtaan ak yow une de temps li nga gis ne mën na décaler. <laughs> mais tu fumes. damay tux cigarette mais des fois damay à chaque fois ma bàyyi. Mhm. di ñëwaat parce que bon xam nga jeunesse des fois da lay da lay da lay rattraper. Mhm. say di nga la def sa jeunesse mais cigarette baaxul. Mhm. mais damay tux de temps en temps. oui cigarette quoi seulement. cigarette pas de ganja. non parole de Saro. Ah ouais, alors tu as fait combien de clips. bon j'ai fait euh, les. j'ai fait cinq clips. pourtant j'ai la possibilité de faire trente clips. mais j'ai fait cinq clips. pourquoi tu as la possibilité d'en faire trente. alors bah, que cinq bah, ouais, parce que pour faire euh, dix clips. Uh -huh. si tu as de l'argent tu peux faire cinquante clips. Uh -huh. mais artiste da nga war a am vision. Uh-huh. da nga war a xam li ngay def du mooy li may wax wax côté buzz bi. Uh-huh. je cherche pas pour avoir le buzz. Uh-huh. non. damay chercher pour exister. yow ndànk-ndànk ngay voilà damay chercher pour exister aussi sur le plan national et international. Mm -hmm. mais c'est ça quoi. D'accord. Voilà. Tuki Tuki, c'est ton tout nouvel, c'est ta toute dernière production mm-hmm. avec un groupe qui s'appelle STFI Jeune. Parle-nous un peu de l'album. album bi euh, boo xoolee dama ne woon euh, dama koy parce que sama premier album fii laa ko enregistré fii laa defee lépp. Mm-hmm. mais dama ne tukki tukki pourquoi tukki tukki parce que de 2015 à 2020 euh, expérience yi ma am ci tukki. mooy maanaam des fois aéroport yeeg des fois voyage de nuit yi guddi yi nga wàcc ci benn dëkk doo dégg seen làkk xam nga mu mu tombee guddi xamoo fu fu dangereux ak fu dangereux wul euh, fu fu bandi yi nekk ak fu bandi wul nekk xam nga expérience si voyage boobu noonu moo tax ma tuddee ko tukki tukki mais aussi tamit di defaale hommage si kii ñi nga xam ne dañuy def euh, immigration. immigration waaw parce que à chaque fois des fois su may voyager di dem Espagne. su ma ñëwee ba nekk ci Méditerranée bi maire bi à chaque fois damay yéendu si suuf géej gi. ça m'a fait def daf may ça m'a fait tellement mal. yaa ngi ci avion bi. jaar fii nii. Uh-huh. milliers d'Africains yoo xam ne ñi ngi dee ci géej gi. Uh-huh. ma ne man j'ai la possibilité am visa pour pour voyager tranquillement uh-huh. mais ñaata personne yoo xamante ni ñi ngi ànd seen di doom ñiy ëmb. mais parce que euh, dañoo yaakaar ne Europe Eldorado la. boo egsee rek euh, euh, xaalis bi day taw. Uh-huh. bon dañoo jógee quitté Afrique aussi parce que misère bi tamit. Uh-huh. yooyu yëpp donc ma ne à qui moo tax ma tuddee ko tukki tukki. tukki tukki waaw d'accord alors souvent quel genre de de de thème ngay développer ci say ci say production musicale. Euh, thème yi may développé ay axru Euh, damay développé thèmes yu bari bon ay ay ay ay ay doomu aadama kenn mënu ko xam thèmes yu bari bon damay sensibiliser sensibiliser tout le temps euh, ci samay thèmes à chaque fois mooy luy luy luy luy luy euh, Euh, yedd askan bi luy euh, wan euh, en jël askan bi pour ñu dem ci fu sori. Mhm. ci lu baax ci lu positif mais pas lu leen di dégradé. des des sociaux. Mhm. moom ngay faral di ah, développé laay développé. xam nga mhm. parce que man sama sama texte yëpp. mooy conscientiser en fait l'être humain. parce que li ci mel ni exemple xool gis nga Bob Marley. Jamaïque la nekk mais ay paroles la ñu egsi na ba fii nii. mais hoo mënul dem fenn. luy naaw ci ngelaw bi la rek daanu. kon artiste bu mu artiste moo warul nax boppam. Mhm. parce que artiste bi war na xam ne ok lii su ma ko defee mu am tey buzz. Uh-huh. Euh, ok est-ce que naa ci naa dund une semaine. Mhm. mais dafa am wax am parole yoo xamante ni boo ko defee c'est pour l'éternité. Mhm. parce que boo maarle ba mu décédé kenn xamul ñaata ñaata at la. Uh-huh. mais ba léegi. ay paroles ay paroles mi ngi mi ngi mi ngi ngi des quoi. c'est ah, ba léegi mm-hmm. ba léegi ay mi ngi des. Ah, ah, parfaitement euh, euh, ci artiste sénégalais yi nga xamante ni xëy na yenn a bokk li ngeen def ah kan nga ci gën a amal relation particulière bon man ñi ma amal relation mooy boo yi nga xamante ni nii feeñuñu. comme kii. waaw am na yenn boo yoo xamante ni nii comme chef Touré Ezra Bande Rufisque la nekk ñooñu samay xarit lañ parce que man du ma du man ñi may côtoyer mooy ñi nga xam ne tout le temps. amuñu possibilité pour génn. Mm-hmm. su ma amee moyen pour. tu les aides waaw voilà voilà jàppale leen mm-hmm. bon ay du ma leen jàppale sax parce que day jàppalante la. Mm-hmm. waaw parce que koo woo mu ñëw. jàppale nga ko moom it mais moom tamit yombalal na la. voilà mais bon comme des fois defoon nañu fi benn festival euh, euh, Blaise Senghor euh, en deux mille dix neuf. dañ leen waaw. d'accord euh, émission bi ñu ngi koy def euh, jamono boo xamante ni nag euh, euh, c'est délicat hein, parce que ñu ngi ci wàllum coronavirus bi artistes yu bëri sax daanaka ñu ngi laam-laamee ci yenn événement yu ñu jëm xëj na ñu ajandi ko tey jii est-ce que tu as des craintes. waaw bon nelaw. déjà yow sax war nga waaw man nelawatuma parce que déjà nii nii nii parce que déjà nii le trois avril sama groupe bi nga xamante ni mooy espagnol yi. war a jógee Espagne pour ñëw Sénégal le trois avril au musée des civilisations bon maa ngi commencé wu di di wu parce que xaw ma ndax dinañ tëj seen frontière ñoom Espagne wala bu ñu egsee fii Sénégal nañ tëj seen frontière wala aussi autorité yi dañuy interdire euh, ay manifestation wala regroupement bon déjà yooyu commencé na ma def euh, def def cas mais daal li ma mën a wax ci coronavirus mooy maanaam euh, loolu lépp système la rek système bi mooy def loolu noonu bu dul terrorisme après des fois ñu indil la ay virus. Mhm. bu ñu indilul virus ñu indil la leneen. toute est pour moi artistiquement di fi may xalaatee côté artiste bi. kon lii yow yaakaar nga ni c'est peut-être une pour man sama sama sama vis sama sama sama sama gis-gisu bopp parce que xam nga àdduna bi tamit yàlla moo ko moom mais dafa am tamit ñu koy gérer mooy ñun doomu adama yi mais ci biir doomu aadama yi tamit dafa am groupe boo xamante ni aussi ñoom it ñoom ñooy. ñoom ñoo ñoom ñoo koy gérer mën naa wax. parce que exemple li ci mel ni exemple Sénégal fii nii am na ku ko ku koy gérer. Macky la réew bu nekk am na keneen ku koy gérer mais am au de loolu yëpp am na tamit luy gérer àdduna bi. benn group lu tax ngay dégg ay ñu naan la ay ay G8. yooyu noonu yëpp wax yooyu yëpp. ay xaw ma xaw ma G14 xaw ma waaw ay G16 ak man je ne mais loolu lépp tamit boo gisee ay les cinq puces les cinq pays les plus plus plus ak yooyu yooyu yëpp boo ko dee dégg. am na lu ne ci biir. moo mhm. man pour man euh, système toujours bu waxtu jotee wala benn ak jotee rek dina am lu muy def parce que crise économique amoon na. Mhm. ñu jóge ci crise économique. Mhm. léegi commencé nañ indi ne terrorisme jihadiste. bon armement ku nekk taxaw braqué sa arme di xaar. jihadiste léegi déjà déggatoo ko après bon indi nañ ay coronavirus. après demee. dinañ xaaraat leneen quoi waaw. yàlla na fi yem. waaw mais nag mais nag bon li may dégg nag Afrique nag mooy Afrique xam nga Cheikh Anta bi dafa am lu mu wax lu am solo mun a armez-vous de science. jusqu'aux dents. ñun tey war nañ mën a dépasser sax réew yi nga xamante ni dañ leen a tuddee euh, les premières puissances. parce que différence su Afrique ak Europe à chaque fois dama koy wax si. Euh, euh, si sama expérience personnelle bon li may wax man la concerné concerné wul kenn parce que artiste là j'ai le droit de de de Euh, propre réflexion voilà parce que mu ngi mel nga yor sa xalima ak sa feuille mhm. ngay bëgg a bind ñu naan la non li ngay bind defee ko nii waxee ko nii mhm. kon aar bi dootul sincère mhm. dootul doon li nga bëgg wax mais exemple tey li ñu sonal lu baari mooy manque de euh, xam-xam te pourtant xam-xam am na fi parce que dafa mel ni exemple université Cheikh Anta Diop da ngay gis ne naar marocain yi fi lay ñëw di jàngisee mais des fois di nga gis sénégalais yoo xam ne bu ñu feebaree Maroc la ñuy dem faju bon lu waral yooyu yooyu yëpp aussi damay bàyyi tamit auditeurs yi ñu xalaat ci. c'est à réfléchir. mais tey dañoo parce que des fois da ngay dégg ñu ne coronavirus ñëw na ñu ne tari leen aaye bii. Mm-hmm. non non du aaye boobu moo ñu musal li ñuy musal mooy réflexion parce que yàlla dafa ne ba ma leen sàkkee laa leen jox seen xel. Mm-hmm. kon yow war nga mën a commencer médecins yi dugg ci laboratoire yi pour xeex loolu parce que loolu noonu du aaye moo ko fi indi mm-hmm. parce que rey na ñu bari. ñoo xamante ni nii dañ chaque jour ñu ngi doon jàng aaya ay yoo xam ne dañ ko habitué te mën nañ ci dee. Mm-hmm. kon du loolu Afrique dafa war a dépasser benn mbugal wala balaa bu ñëwee rek ñu bëgg ko teg ci religion non il faut ñu koy def tamit des fois ci science. Mm-hmm. waaw parce que oto boo gaaree sa buntu kër amul gasoil wala amul essence boo doon jàng aaya yi gën a kawe. du tax oto bi tàkk waaw kon affaire de. kii la quoi comment dirais-je affaire affaire de matière la quoi mhm. bon loolu tamit damay remarquer ne Afrique tamit mhm. toujours dañoo nekk ci genre science fiction yooyu noonu mhm. te euh, c'est le temps aussi tamit pour ñu génn ci yooyu noonu voilà parce que am Cheikh Anta Diop def waxaat na ne tamit le rendez-vous du donner et di recevoir et di recevoir xam loolu bu ko wax ba koy wax boobu yàgg na kon loolu noonu moo manqué Afrique tey te pourtant ressources yëpp am na fi mais science fiction bi bu bu dañee rek bon dañu nekk ci pays sous-développé à pays développé. en tout cas waa alors est-ce que tey Saro est fier de la manière dont est gérée notre république le Sénégal. mais bien sûr. waaw mmh. effectivement gestion politique bi. bon man gestion euh, politique bi maanaam ci ban côté. ci fànn yëpp vie sociale bi on critique beaucoup nos nos dirigeants rawatina ñi nga xamante ne ñoo nekk ci régime bi est-ce que yow en tant que citoyen tey jii am nga lu la neex ci sa réew ak niñ koy doxalee. mais amul benn réew boo xamante ni nii mën nga am satisfaction. 100 mhm. pour cent. Mhm. c' est que bëri yëg nañ ni Sénégal dafa gën a metti tu sens la mais Europe tamit dafa metti. Mhm. Europe dafa metti xam nga Europe da nga fa man am na yoo xam dañuy dañuy jël fii jël gaal. fay ay 1 million nga egg wàcc gis benn espagnol wala benn français bu taxaw yor këllam di la ñaan. déjà yow mën nga découragé. da nga naan kon xaalis bi ma doon kii cest àdduna lépp a metti c'est-à-dire que peut-être le président moom xam nga bu sañoon dëkk bi mooy gën a neex àdduna bi yëpp mais jéem la mën mais nag dañoo nekk tamit si dëkk boo xam ne aussi tamit bon politiciens yi foo ñu gën a am yërmande comme lu si mel ni président tamit foo mu gën a euh, góorgóorlu mais aussi tamit dañoo nekk si dëkk boo xam ne aussi tamit koo fi teggi tegaat ko tamit du tee tamit dañuy continuer di casse toujours waaw c'est compliqué euh, dans ton art tey jii bu amoon loo ci war a defaraat wala loo ci war a di wala boog nga am ay regret euh, peut-on savoir c'est quoi non sama art awma ci benn regret du ma ci mës a am regret parce que ba ma ko choisir dama ko réfléchir bu baax a baax. mais am na moment yu métti yoo ci dund. waaw du ñàkk. Uh-huh. comme li nga ko wax léegi nii rek àdduna amul dara loo xam ne day neex. tout le temps mais am na moment yu bari yoo xamante ne nii am na yoo xam ne métti na parce que. galéré naa tamit mais c'est normal parce que mënoo ñëw rek di dund paradis de après continuer di dem paradis kon doo xam luy bonheur parce que des fois da ngay dox sax mu naaj nga jékki-jékki dugg ci kër ñaar yooyu noonu ñoo ànd moo tax bon lu lépp lu ñëw rek damay dama koy philosophiquement damay ne ok lii mooy moment bi léegi bu dans tous les cas aussi ma nekkaat ci leneen mais bu fekkee li ma choisir art du ma ko mës a regretter moom moo moo nekkoon moo nekk sama xol parce que des fois nit def benn métier boo xam ne bëgg ko parce que xaalis moo tax mu koy def. Uh-huh. tu n'es pas sincère avec avec toi-même. li nga bëgg nga koy def nga nga ci ak nga ñàkk uh-huh. chaque fois tamit da nekk rek. Uh-huh. Ah alors euh, ci tournée yi nga def yëpp ban moo ci gën a am succès. bon tënne yi ma def yëpp je crois que yëpp am na succès. Mhm. waaw amul benn bu ma def. le public a répondu. waaw répondu waay sur le plan international. nga wax ba nooy non foofu yëpp ay répondre mhm. waaw parce que man déjà su ma eggee ci réew mi damay gis samay samay affiche un peu partout. Mhm. waaw bon euh, Inde tamit nekk na dëkk bu ma neex boo xam ne marqué na ma. Espagne aussi tamit nekk na dëkk bu ma marqué sama premier voyage. à l' Espagne de woon. mais public bi bon ay bon doo da ngay xool sa bët rek parce que mënoo ko mënoo ko compter. ah oui waaw mënoo ko conté bon mi ngi ci internet bi. <laughs> naa ko xoolaat. Sénégal ñaata concert nga fi dóor. non bëri na bëri na mais Sénégal bon concert yi ma fiy def bon déjà bon euh, dina am nit quoi mais bon da ngay sentir ne des fois public bi. Mm-hmm. yenn public yi. Mm-hmm. bon du ñu du ñu du répondre benn concert laa mës a def boo xamante ni en dehors de expatrié yi. fii Dakar li ci mel ay institut français booy joué nit ñi dañuy ñëw. moom beneen public la. mais euh, Alem def naa benn benn concert Alem la woon euh, Alem l'avenir bu ñu doon def euh, hommage à Joe Wakam. 2019 mm-hmm. ci biennale bi. Mm-hmm. bon parcelle lañ ko defee woon kii terrain ak APES. Mm-hmm. mais boobu noonu man j'ai apprécié wu ma woon. parce que bon public bi dañoo taxaw di xool nii après. commencé di dem. mais bon ñooñu nag ñooy public bi nga xamante ni pareeguñu pour recevoir façon musique bii nii. parce que bu ñu woowoon yenn mbalaxmaan yu tur yenn tur yi nii danga gis ne day fees dell. mais en plus que ça dañuy yëngatu parce que loolu seen nopp si loolu la loolu la loolu la loolu la kii quoi foofu la seen niveau nopp yam voilà. d'accord mais day dañ ma tam te bientôt da ngay takk ñaareel c'est vrai si. xanaa say rawxaan yi ñoo la wax. dëgg la. <laughs> waaw mais bon waaw waaw boo ma ko joxee ma jël. non eh. yaa ma war a jox non. tu confirmes wala tu mën naa confirmer mën naa confirmer bu fekkee ne yow indil nga ma ñaareel. yaa ngi daw res de. non non daw ma res de bu fekkee indil nga ma. non man man xam nga du ma daw <laughs> non man du ma am ñaareel. Uh-huh. non du am ñaareel. d'accord waa tey jii. Euh, ñii bëgguma am ñaareel tam bëggoo am ñaareel. sa aawo bi mat na fii man fële mën na fii man fële. du wàllu du wàllu mat sax mais man dama gis ne peut-être. xol benn la tu es monogame de nature quoi. waaw de nature bon xol benn la te man artiste laa yaakaar naa ne mënuma bëgg lii bëgg parce que boo commencé dugg ci ñaareel rek ngi commencé wax lu dul dëgg. Uh-huh. waaw parce que yaa ngi jéem a xool ku nekk li koy neex. Uh-huh. te boobaay peut-être mën nga nax sa bopp quoi. Uh-huh. bon man je benn benn femme. d'accord instant le tout dernier programme le tout dernier projet de Saro bientôt ci lan ci lan lañ la nar a dégg. waaw mooy euh, musée bi nga xam ne moom laa war a def le 3 avril. ak uh, hôtel soo xamoon maa koy préparé gis nga moo tax ma sonn. Uh-huh. dèjà da nga ma bind message rek ma jóg sanguwuma sax. sérieux yé démb nag ma tegal tab. <laughs> moo tax sax boo bàyyi mel ni njàmpeñax. <laughs> gis nga de moo tax ma jóg daw parce que ma ne mimi moo ma woo sinon rek. te tamit indi ma ay ay jàpp quoi. Uh-huh. waaw bon après su ma defee kii boobu noonu événement boob maa ngi nag. Mm-hmm. di. Euh, Euh, def promotion album tukki tukki bi déjà disponible na. déjà avec combien huit sept. waaw sept titres. Mhm. déjà disponible na physiquement disponible na sur toutes les plateformes de téléchargement yi. Mhm. Euh, su ma paree si concert yooyu noonu bon bu fekkee corona bi euh, kii wu ma ma. Mhm. oui après maa ngi def promo bi su le plan national ak waajal tamit yenn tournée sur le plan international pour gën a promouvoir tamit aussi album bi. tukki tukki bi ban moo ci gën a neex. non yaakaar naa ne yëpp neex na même bi ma gën a neex ngay wax. man bi ma gën a neex. nga xamante ne man dina ma gën a neex. waaw waaw yow xam naa guddi selaw. acca. <laughs> ba guddi gi ne selaw ñi di nelaw ba guddi gi di soore ñi di yandoo daje nak moom ci yoonu. sili wi yoon wi ne ma damay daanu te wóor na yaa àll mi tiim tànnu bay bëre uhu bay daanu yowo woon yowo woon yowo woon mënoo ma si jéeri ji mënoo ma si jéeri ji mënoo si géej gi li ma doole yi soo ma toppee sàmbara yàlla sama ginnaaw mimi lu ma ko digal mu def lu ma ko wax mu def uh-huh. ñoo ngi sama ginnaaw <laughs> waaye sur ces notes la ñuy tëjee alors nga tàggoo ñi nga xamante ni depuis 16 heures ñu la doon teew teewlu ci la rajo du bonheur. Mhm. waaw maa ngi leen di gërëm di di di leen sant di la sant tamit tamit di am mbégte bu baax. Euh, saa yu may def ak émission dama remarqué ne aussi tamit damay bàyyeeku damay free moo xam naa ci yow la euh, di kontaan bu baax euh, di la remercier di remercier aussi ñi ñuy déglu di ñaanal jàmm réew mi FM ñëpp waaw aussi tamit di wax ne bon bu fekkee wax na ah tamit lu ko xam ne bon peut-être déranger na ki koy déglu bon maa ngi jégalu parce que nit moo matadi uh-huh. parce que xam nga entretien yombul uh-huh. mais bind texte yomb na parce que boo defee erreur mën nga ko gomee uh-huh. waaw. boo bindee big de boo ko non boo ko ma da ngay jëlaat beneen feuille rek recopier <laughs> voilà. Uh, <laughs> voilà voilà di di ñaan jàmm aussi si réew mi di wax aussi tamit coronavirus bi tamit. ah yal na ñu bàyyee jàmm ak salaam si bàyyee jàmm ak salaam bon ah. waaw aussi tamit di di di kii rek bon de def. Euh, prévenir waaw waaw mieux prévenir que guérir di raxas euh, loxo yi bu baax xam nga. li nga xamante ni médecins wax nañ ñu ko ñu def ko. Mm-hmm. rassemblement yi ñu tere tamit ñu bàyyi ko bañ a forcer quoi. Mm-hmm. voilà d'accord jërëjëf Sakho yaa nekkoon suñu invité Sara Mbundu waxoo fi dara loo xamante ni ku la dégg xeeb la comme d'habitude su may def ak yow émission damay kontaan loolu. alors euh, donc euh, c'était un grand plaisir de t'avoir dans notre plateau ñu dem kon amis auditeurs ba beneen yoon ñu toog fi ak beneen star kenn du yen ñu ñaanal leen euh, week-end jàmm ak salaam xamante ni moo fi dugg di coronavirus mu yem ci 19 cas yi yàlla dàq ko mu dem fële ah jàmm amaat lépp doxaat ci mim réew ñun lool la ñu xam lool la ñu taamu ah, loolu la ñu taamu kon amis auditeurs kon merci chez vous et très bon